règlement intérieur euh, après naa leen ko yónnee day wax ci benn article tout député peut poser une question préalable moom na gis-gis moom bi mu ci am te muy gis-gis boo xam ne dëppoowul ak règlement intérieur mooy un seul député a le droit de poser une question préalable loolu nag bi mu amee ñu ne ko loolu du fi amee ndaxte kat bu ñu commencé nii débat bi ça veut dire que ci biir waxtaan bi lii nar a am mooy Euh, ay interprétation règlement intérieur boo xam ne dëppoowul ak règlement intérieur maanaam interprétation yaa ma neex moo na a am interprétation pour baral waxtaan bi te ñun dañoo bëgg a waxtaan boo xam ne sénégalais yi ñu ñuy déglu ñu ñu fal ñu ngi ñuy déglu d'accord foog ñu comprendre débat bi foog ñu comprendre enjeu yi loolu moo tax ñu ne tout député peut poser une question préalable député yëpp yi nga xam ne dañoo am question préalable ñu poser seen question jox benn rek donc lii mooy suñu jafe léegi nag ñun dañoo pare tey du ñu may benn du ñu may président assemblée nationale mu faagaagal suñu benn sañ